li ma bëggoon euh, d'abord wax dañuy sant suñu boroom yàlla bi ñu sàkk ci kaw suuf di julli ci yonanteem Seydina Muhammad sallallahu sallam di nuyu mboolem sénégalais muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw di nuyu suñu kilifa yi kilifa diine yi ak kilifa di nuyu militant mouvement demain c'est maintenant di leen jaajëfal yéen ñi nga euh, journaliste góor ak jigéen wuy si ci mouvement demain c'est maintenant Il bi nga pour mën sénégalais ci suñu gis en tant que mouvement de c'est maintenant ci lu jëm ci suñu réew siège bi ngeen ko siège bu commencé di bagage bi di bu ci kanam dinañ accueillir ah, ci ay anam yo euh yu yu leen di permettre ngeen def parce que solo euh, ci réew rawatina nag ci réew boo xamante ni mi ngi wuyoo démocratie gannaaw loolu bi ñu génnee ci feetu korité bi ak Pâques bi ak li ñuy woowee bés bi ñu jagleel ci àddina bi liberté de la presse deme c'est maintenant mu ngi sargal jullit yi chrétiens yi mais aussi liggéeykat yi gannaaw bi ñu célébrer premier mi mai bi passé fête du travail mu donne euh, occasion bu am solo ci waxtan ci lu jëm ci liggéey ci suñu réew mais aussi ci lu jëm ci ñakum liggéey ci suñu réew rawatina ci euh, pour ndaw ñi loolu mouvement mai c'est maintenant amal na ay waxtan yu yaatu ci membre yi ku nekk nga joxe sa xalaat ñu ne ci lu jëm ci senegal am na ay ponk yoo xamante ni yu am solo euh, war nañ cee mën a waxtaan ponk bu njëkk bi mooy ni ngeen ko xamee charte bi nga xamante ni F24 te Mamadou Mbodj teewal leen ko fii euh, ñu war ko saytu xool lan moo war a nekk suñu taxawaay en tant que mouvement demain c'est maintenant beneen ponk bi mooy euh, kàddu yu njuuti réew mi yëkkati jëmale ko ci mboolem kuy yëngatu ci Sénégal yow yaa xam ci wàllu politique la walla ci anamu citoyenneté tàllal loxoom ne dafa bëgg ñu ñëw waxtaan ak moom diisoog moom lolu ñu que nous avons bi ci tegu moy li xaw li xew ci nous bi di ñu moy réew yi ñu wër wala réew yo xamanteni xaw nañu sori mais mu yittel ñu itam ci lu jëm ci manam li ñuy depuis ay at nous euh, ñukoy troisième mandat le troisième candidature bu président Macky Sall suñu gis-gis ak suñu position mouvement citoyen demain c'est maintenant moy que ñun anduñu ci anduñu ci président Macky Sall di wut ñettelu mandat dañu bëgg géew bi ñu yaatal ko ci bépp sénégalais nga xamante réunir nga li ñuy woowee condition d'éligibilité pour nga mën a participer ci élection yi mais aussi pour nga mën a voter parce que voter dafa nekk loo xamante ni lu am solo boo nekkee citoyen ñu ne itam dañuy yëkkati suñu kàddu wax ko nu mu gën a leere ñun dañu jàpp ni liberté muy liberté ku ci nekk ci ñun walla liberté yi ñu bokk dañ ko war a aar dañ ko war a sàmm bi ñu waxtaanee ñu ne loolu gis-gis boobu ak charte F24 bi nga xamante ni jot nañ ko jàng gis nañ ne ñun war nañu signe charte bi bi nga xamante ni F24 moo ko euh, initié te ma fàttali ko Mamadou Mbodj représenté leen fii rax ci dolli ñun dañu ne bu ñu yem rek dinaan dañuy signe charte bi ne d'accord une ci troisième mandat mais dañu ne bépp leader bi nga xamanteni ni signé nga charte bi da nga wara jël engagement ci kanamu sénégalais yi ëllëg bu fekkenteni ni nañ la réew mi wala nga bok ci ñi nga xamanteni ni dañ la dañ leen denk réew mi nga engagé wu que troisième mandat do ko tudd do ko dox do ko jëf mu leer ndax Sénégal sonna na ci débat troisième mandat te loolu bu ngeen ko seetloo depuis 2011 2012 ba am ay nit yo xamanteni ñak nañ ci sen bakkan ñeneen ñi ñu gañu ci nit ñi jaxaso borom ñi nga xamanteni dañu am sen liggéey ñu yow yàq ñu ñew yàq ko lolu ñun dañu japp ni dañu wara engager engagé wu ñoom signataire charte F24 bi ci lu leer a ka affaireu troisième mandat bu leen bu leen sénégalais joxé réew mi yalla rek mo xam nak kan lañ koy jox nous avons encore ci le débat débat troisième mandat ñu teg ci ni dañu war a euh, maanaam yaatal bi wax mais dañu war a am ay waxtaan waxtaan parce que sénégalais Sénégal plutôt dañ Sénégal wax ko waxaat ko réewu jàmm la réewu diisoo bi njiitu réew muy yëkkatee kàddoom ca d'abord message 3 avril bi passé ci fête l'indépendance bi ba ci corité bi né mi ngi talal loxom les forces vives de la nation pour ñu ñëw waxtaan ñu ne ah ñun dé. mouvement demain c'est maintenant suñu gis-gis niñ koy waxé co-construction manam tabaxandoo sur le principe ku ñu woo ci waxtaan ñun mënuñu ne duñ ci bokk waaye li ñu wax njiitu réew mi booy tàllal sa loxo ne ñoo leen ñu waxtaan foog nga leeral ci li ñuy waxtaane boo ko waxul dina xaw a jafe nit ñi mën a wuy si euh, maanaam ci euh, ci waxtaan boobu bi nga xamante ni invité nga leen donc nañu wax ci lu leer lan moo sumb waxtaan bi lan mooy ponk waxtaan bi xam nañ ni ñu ngi ci ay élection te loolu aussi ñun am nañ ci gis-gis gis-gis bi moy élection yi dafa wara lèr dafa wara a dafa wara and ak dal wara and ak jam mais aussi dañuy ñaan dañuy ñaan parce que processus révision liste électorale bi jéxagul ñu ngi fu mu nekk nii ci phase contentieuse bi le 6 mai normalement lañ ko wara a lañ ko wara a ñun dañuy ñaan avant ñu ñu koy tëj ñu prolonger ko

ci lo xamante dina jëmale réew mi kanam donc nañu euh, yok dir bi pour nit ñi mëna dem parce que élection dafa wara célébration de la démocratie warul nek nous xamante dañ koy tejj ku nek ñu la sa droit dédé dañ ko wara permettre citoyens yi dem mais aussi ñu dem voter ji ci ay anam yu ak nous teg ci ne ñun euh, li ñuy woowee tabaxandoo dañ dañ cee sax dañuy sénégalais yi ñu gën koo dooleel ñu gën xel parce que tabaxandoo mooy tax réew jëm ca kanam ñu ngi itam depuis ñu lancé la euh, vision co-construction bi nga demain c'est maintenant def ko porté ay parti politique muy mouvement citoyen ba ay kilifa yo xamanteni sax dañu am ay ndombal tank, ñu ngi leen di dégg ñuy vraiment lu bari ci lu jëm ci co-construction maanaam tabaxandoo loolu ...donc euh, donté ñun mouvement citoyen demain c'est maintenant barki démb la ñu juddu gis nañu suñu xalaat ñu ngi ciy bay xel té lolu dañ rafetlu au contraire dañ koy encourager amul dara lo xamanteni def ñu au contraire ñun suñu idées yi ñuy avancé nit ñi mën koo relayer ba mu gën a am doole euh, ci loo xamante ni lu mujj daal euh, gis nañu itam Sénégal li ko wër xaw na euh, bëri ay yëngu-yëngu gis ngeen Burkina Faso bi barki démb rek am ay sénégalais yoo xamante ni dal nañu seen kaw ba fu mu nekk nii ñu ngi xool ni ñu leen di rapatrier kon nag. bu ne ah li xew Burkina Faso wala Mali ñun concerné wuñu nañ ci baye xel bu baax Soudan mi nga xamanteni aussi amna ay yengu yengu gis ngeen amna ay sénégalais yu fa nek ñu war leen fi itam ci réew mi donc gis ngeen Soudan ak fi mu euh, aussi li xew Soudan ça ne nous concerne pas li xew République démocratique du Congo itam lu ñu lu xew Palestine xam Sénégal moom mooy président du comité des droits inaliénables du peuple palestinien depuis ay at depuis les années 70 ba Sénégal moo jiitu jiite kuréel boobu bi nga xamante ni mbirum Palestine moo ko moo ko tax a jóg ak yeneen euh, réew yi nga xamante ni lu mel Ukraine guerre bi am digënté Ukraine ak Russie lolu aussi bañ nañ ci xel bu baax dañu né Sénégal ak histoire am bu reuy bi ak sa position géographique ni mu ci position bi mu occupé ak suñu valeur nak li nga xamanteni ñun dañu am ñu yalla nous ñu am nañu ba bi profito ci di wax euh, Sénégal nous ñu demain c'est maintenant dafa ci langue maanaam joxe xalaatam mais aussi soobu ci soobu ci liggéeyal réew mi ndax réew mi dafa laaj ñun ñëpp ñu jóg te ñun jóg nañu ñu ngi leen di gërëm di leen sant